waa nañ bi Seydina Limaamu Laay ni mooy yenente bi ay mbokkam nu ñu def mbaa weddiw ñu ko naka ñu ko defee woon ba mu weexee ñoxor ni nga ko xamee rekk yonente bu fi mës a woote ay mbokkam ñoo koy njëkk weddi lu ñu tàmm di gis la yonente bu yàlla yónni ñu nekkatu yow walla ñu rey ko Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa sallam mucc ci nee nañu ko dof nga yàq nañu deram sosal nañu ko ngir boole ko ak tubaab yi waaye mësul soppi waxam muhammad na la woon yeewu na bu nekk dégg nañ ko nag maay Mahdiyu maay Isa ñii naa sax maay Mahdiyu ak Isa waaye maay yoneen bi ku ko fi waxte doo moom dey <laughs> yërëm naa la de Seydina Limaamu Laay kese dong képp moo ko sañ a wax tek ci nak ni li mo wax ku ko wax di nga tak jepet mba suuf won la li de ku ko wax te do mom di nga xam nu buur ba samp ba ngi ku fel xam sayyidina limam lay sallallahu alayhi wa sallam ñu leral mbiri mahdiyu te sax mahdiyu yu budul yonen bi wute gu reey moy am ci l'islam man dem na ñaari mbir yu jaxalon bi ñeek moy yent yalla isa mi ñu ne mooy yenent bii gën ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa naka la ko mahdi yu mën a jiitee julli ñaareel bi mooy mahdi yu naka la mën a toppee yoonu Muhammad te du mës a juum Muhammad nekk mahdi yu rek moo mën a nekk yi nga wax nii xel mun kaa nangu dëgg la léegi wax ma ci ay muxjisaatam nag lii ñuy xàmmeewee yonent jërëjëf ñoxor ni nga def nii la nit war a doxalee bu déggee ne dafa am ku woote ne yonent la Firawna lu muy kàccoor kàccoor bi yonent yàlla Muusa alayhi salaam ñëwee ne ko yàlla moo ma yónni dane ko wan ma sa màndarga bu fekkee bokk nga ci way dëggu ñi waaye ñëwul rekk ne ko yàlla yónniwu la ne du weddal wu xamul ñu ne la di woote na nga toog sa kër ñu lay defaral ay ginaar ngay lekk tegle say tànk di ray biir te naan <laughs> damaam loolu wóorul billaahi wóorul ñoxor muxjizaati seydina limaamu laay mënee sukaa waaye man yi kenn mënul weddi laa lay wax te benn wax moo meññ loolu yépp seydina limaamu laay dane sallallahu alayhi wa bu ma waxoon safaan ngeen wax dëgg yàlla wëlbati sama safaan def ko dëgg jël seen dëgg def ko safaan lii de ko yàlla àndul ak yow sañoo kaa wax waaw léegi ñu xool ñoxor Seydina Limaamu Laay salaam waxoon na ba ko tubaab yi bëggee sànk boo leen noppee gis maawa gaal gi xam leen ne duma imaamul mahdiw tubaab yi mujjewuñu ko yóbbu pour sànk ka ndaxte gore lañu yem mënuñu ko woon weesu kon moom génnu Sénégal mukk ñoxor waxoon na ni sallallahu alayhi wa sallam samay tànkaa ngi juróom-ñaareelu suuf sama bopp asamaani juróom-ñaar munoo leen maa foto ba mu jàpp lan Seydina Limaam Laay amoon foto nasaraan si jéem nañu ba sonn munuñu koo jàpp waa borom ñaari kaalo yu rafet yooyu may gis nag kan la kookooy Seydina Isa ruuhullah alayhi salaam gaynde ak yàlla gi kooku moo wuutu imaamillah ba mu amee fanweeri at ak ñett at ya yonente yàlla isa doomu mariyaama ja yéege woon asamaan teg ci toog ñeen fukki at ci xilaafa gi comme naka téere ya waxee woon dinañu ñëw ci moom incha allah kaaw teef ñoxor seydinaa limaamu laay alayhi salaam moo fi njëkk xaraamal poon ak sigaret ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk demoon na bay wax ni kala tux bal jege ma jàkka tey àdduna jox na ko dëgg docteur yi guddeex bëccëg ñoo ngi ñuy xamal loraange yii cigarette mun a teg nit Seydina Limaamu Laay de yey na àdduna Limaamu Laay alayhi waxoon na ni ndakaaru laa wootee ñu weddi ma waaye fii laay toog te lépp dina ma fi fekk incha ñépp dinañu ñëw dinañu ñëw ngir gëm si ma wala ñu ñëw ngir xéewalu tey kenn mënul weddi ni ndakaaru njaay gii mooy senegal fii la lépp nekk weddi ne gis bokku ci te nag ñoxor lii lancement bi la film bi ñëwagul ndax Seydina Limaamu alayhi salaam àdduna la wax ni dina mabba fekki si ko fii kon nag lii ci kanam rawali bat waaye balaa boobu man maa yóote palaas de waaw man damay laajte ndax yàlla dina dimbali ku koy sosal ba kay xamal kumpa mukk bu la tara xalul de la jàppale ku weddi laajal Musa inamatul kazzab fii may tëjee mooy lii yéem àdduna yéem képp ku ko gis te nga am ak ragal yàlla yéem képp ku ko gis tey xellu muy lii allahu akbar seydinaa laay mii tëdd ci sa feesu géej lu ëpp téeméeri at ti géej sañu koo laal xalaas laay man de ba gisee laa daanu jël ndax te géej li mu nekk di def si àdduna bi kër yu bari yàq na leen ay wil yu bari léegi ñu di lii gi ndax géej gi da leen di lekk ñaar kese dong képp moo mën a am bu njëkk bi mooy géej gi boo seetee ba ci biir du géej ak dex la day làqatu rek wala ñaareel bi mooy te bii sax moo gën a yenu maana mooy Seydina Limaamu Laay mii tëdd fii te yàlla faral ko ba mu fi nekkee ba mu génnee àdduna tamit yàlla continuer di faral daa fekk ne billaahi mooy